waaye madame. yaa ngi lii sa journal de mbaa sonnoo tay bi nga wàccee. non tay bi ngay dem gisuma la sax ni nga sañse wala. fekk yaa sa sañse baax na de rouge bi génn ci biir. non mais euh, il faut ah, a wane bëgg nga ah, ah, am am journal ma rek s'il te plaît. nga xam mbaa la. lu suñu album de mariage. mais loolu chaque jour ma seetaan ko. mais dama bëgg seetaan ko rek. lu xew mbaaru jàmm la seetaanal rek surprise lii lan la fleur la est-ce que xam nga ne tey 14 waaw xam naa bi may xëy je savais que 14 waaw tey la Saint-Valentin la fête des amoureux mais je ne comprends pas quoi yow ñaata yoon ñaata 20 ans de mariage du 20 jours du 20 mois wax ak yow nag jot ma chérie gannaaw bi ñu ma la jëbbalee nga bàyyi sa ndey bàyyi sa baay ñu ne toppal sa ndigaru jëkkër na doon sa ndey na doon sa baay na doon sa xarit boobu la fête bi waroon commencé kon lii boo ko fetee tey damay neex te dama si am fierté am si mbégte mais li tubaab di wax yaa ngi dégg lépp loo xam ne nii tout ce qui va pas continuer il faut pas le commencer liñu wara woné moy li ngeen wara jëfé moy ngeen sey sey bi def liñ leen defloo dekk si li ngeen di dund ni dafa nekk lu doy waar parce que mbëggeel du benn fan. mbëggeel mais tay la 14 août. mais man dunduma 14 août xawma luy 14 août. mais am. non cadeau la pour yow. non tay man chaque jour ma fournir la cadeau benn fan bi nga may wara fournir cadeau. roy dakk nak weesu di roy di toppandoo loo xam ne dundoo ko si. nekk si mooy bégal sa jëkkër topp ay ndigalam bàyyi ay tereem dëkk si safoo ko waaw mais loolu du ngeen ko def bala ngeen wane seen cofeel affaire naafeq yi rek jour bi jot ngeen di wane seen mbëggeel ak seen cofeel bu paasee ngeen fàtte nekk si lu leen neex teel sa lii nga xoolaat sa bopp nga waajalaat sa bopp waaw nga dund li ngay wane nii mu nekk loo xam ne danga koy véhiculer ak ma diggante yow mu nekk lu dëggu su boobaa bu jour bi joxee ah kenn du la ko wax ñaari yoon te boo ko jëfee tamit dama si ànd ak yow gunge la si jàppale la si nga xam ne du yow rek yaa ko mën a fete teel teel sa fleur bi tiens prends xoolaatal sa bopp nga waajalaat sa bopp comme saa ko bu fet ah dangereux